nan nga jàngatee les décisions prises. Euh, sur le sur le foncier euh, particulièrement l'arrêt du de des des travaux au niveau du de tout le littoral euh, euh dakarois l'histoire euh, Mbour 4 ak euh, yooyu. damay jàpp une chose c'est que peut-être ñoom ñoo ma gën a xam loolu parce que ñoom seen liggéey la seen métier la xëy na am na luñ ci jublu voilà lu ñu xamoon lu ñu may gis nga. bu ma jëlee mbuurkat keroog recevoir nga fi sama collègue foog naa jox na la ci ay. Ablaye Sow waaw jox na la ci ay information mhm. euh, bu ma déggee une ville par exemple qui dit que man nang sang laa yor wala nangam alors que population am ñu ñoo à la base ñoo taxoon ñu def loolu maanaam les impactés de Mbourkat ils étaient près de 3000 je crois que wax na la ko fii donc ñooñu <laughs> dëkkuñu gi ji la na Thiès lañ dëkk. nombre bi foofu la tàmbale et cetera si l'État a l'ambition de dire je vais créer une nouvelle ville foofu la nouvelle ville de Thiès dafa am lu mu àndal maanaam dana àndal ak ay aménagement du ki nga jox une parcelle de deux cent mètres carrés qui va te faire ces aménagements là donc dana am quelques exceptions yoo xam ne c'est dans l'ensemble maintenant comme je dis c'est qui regarde qui apprécie il y a des peut-être assis d'autres pas à eux en ce les gens chacun assume un peu ses trucs mais je pense que c'est bu dee en deux mois là loolu la ñu wax pour ay pour ay action dama naan gars yi attention vous êtes venu ici avec un projet à exécuter le projet pour l'instant on le voit pas moi je vois des ministres qui se mettent devant nos réalisations et qui disent que voilà le phénomène Diomaye <laughs> donc man loolu laa gisugum mais convenons qu'il est un peu trop tôt de les critiquer même il donne envie mais c'est un peu trop tôt parce que toogaguñu euh, pareeguñu sax seeni nomination c'est un peu prématuré euh, les changements sont pas tous faits euh, voilà donc attendons un peu d'habitude on laisse les cent premiers jours quoi après. mais li Sonko wax sur la réduction des denrées moom dafa jàpp ne il faut une vision à long terme. Ah, il faut créer les conditions d'une autosuffisance. Oh. et que à date. il sera très difficile. euh, de procéder à une réduction des des denrées. Ah, moo ne woon moo ne woon ñun ñoo gën a cher ci sous-région bi nous on a un tableau qui montre que <laughs> nous sommes les moins chers ci les éléments essentiels yi ñuy wax yow boo xamee li ngay jënd ciment Mali gi mënoo ko comparer ak Sénégal et cetera on on on les prix moo ne woon c'est on est on est trop cher et cetera que donc ñoom bu ñu ñëwee ils avaient donné un deadline. pour wàññi prix le 15 mai le 15 non bi ñu toogee la mais avant wax ne sénégalais foofu lañ leen di xaar parce que les sénégalais la qui nous reprochaient que way mu ngi jël xaw ma lan parce que la vie est chère ñu continuer jël gaal gi donc foofu lañ leen di xaar nga ñëw ba toog nag commencé ni naa ne noo euh, en réalité la guerre d'Ukraine am na impact Euh, Covid bi nangam nag mais nous c'est ce qu'on a vécu dernier mandat du président Macky Sall il le tenir il fallait avoir de fondement économiques solides pour que ñu génn niñ ci génnee mbas lañu génn dara doxatuloon dara demul ku ku la doon jaay ceeb dafa tey ceebam pour dundal askanam mais malgré cela tous les leviers bi état amu waroon am pour yombalal askan bi mais def nañ ko énergie bii chaque jour bu fi FMI ñëwee nga dégg liñ ci wax l'année N moins 1 là 750 milliards lañ dugg ci subvention bii passé nii 400 et quelques 450 milliards mais yooyu xajoon na bu ñu ko defoon feneen xëy na gars ne voilà mais loolu moo jàppale sénégalais ba dal bi fi am ne fi loolu nag sëñ bi ndegam du coffre booy ubbi jël ko liggéey la liggéey boobu lañ leen di laaj nga juboo ak ñi xam ne ce sont les partenaires traditionnels du Sénégal pas dans le populisme parce que y a des équilibres importants à dans ce pays